ba Sénégal Actu dama am ñaari information benn bi ndax ma torop dëgg yàlla waa euh, li may commencer mooy am na kenn ko xam te dafa nekk ci réseaux sociaux yi tudd Papi Kane activiste donc Papy Kane activiste ndax euh, depuis ñaari at yi yëpp dafa toppoon ki nga xam ne moo di Oumy Ndour journaliste bi euh, di ko limite di ko harceler di ko diffamer et tout donc moom daf ko porter plainte tey nag ñu demoon fi nga xamante ne moo di dikk euh, bu mu demee dañu ko déglu ba pare daal di koy demander na def benn poste déjà pour excuser wu donc ci poste bi mu ngi ci bind man Madiodio Kassé moom compte Facebook bi nga xam ne moo di Papi Kane activiste te mu tudd woon Papi Kane neex wi euh, nangu naa ne man maa saaga maa diffamé man maa sosal ki nga xamante ne ne moo di madame Oumy Ndour journaliste depuis ñaari at maa koy def nangu naa ne accusation yi nga xamante ne ne dama kaa def ci moom ci diiru ñaari at yi yëpp dara du ci dëgg et que dama bëggoon yàq deram ak li nga xam ne moo di honneur am xamuma ko musuma koo gis avant tey jii nii suñu jour confrontation fii ci division spéciale de la cybercriminalité tey lundi 3 juin 2024 ci post bii na maa koy euh, baalu ak euh, publiquement ci kanamu ñëpp euh, d'accord naa ne dinaa effacer post yi nga xamante ne yëpp def naa ko ci moom ci ñaari at yi yëpp d'accord naa ne dinaa jël post bii nii def ko ci sama profil Facebook bàyyi ko fi diiru deux mois d'accord naa ne dootuma ko tuddati dootuma ko contacter ci bépp moyen de communication bu mën a doon muy téléphone wala réseaux sociaux yi lu mën a doon su fekkante ne ne jaaree naa beneen compte même bu si sama sama bos madame Ndour am na droit mu réactivé waat li nga xam ne moo di plainte bi maa ngi ko bind tey le 3 juin 2024 ci locaux division spéciale de cybercriminalité donc Papikan activiste bi dafa bindoon lii nii daal di koy def ci ci page Facebook am. xam naa ne dañ ko ko signaloo foofu ne ko da nga koy posté mu posté ko na après une heure de temps andi na ndax bu bëri ci euh, réseaux sociaux yi. après na ñu jëkki jékki mu supprimer ko xam ne attanul na pression bi donc vu que daf ko supprimer ki nga xamante ne moo di Oumy Ndour def na benn post moom itamit ci réseaux sociaux yi di wax ne moom gardé li nga xamante ne moo di plainte bi nekk di yëpp nañu xam ne ne moom du bàyyi e que euh, dossier bi dina dem ba ci procureur bi ci waxtu yi di ñëw euh, mu ngi door a génn euh, bureau enquêteur yi def nañu face à face tey si suba mais moom du nangu benn médiation dafa bëgg a dem ba jusqu'au bout euh, plainte bi nga xamante ne ne def na ko de tout façon même bu fekkante ne dafa effacé li nga xamante ne ne moom la def et tout moom dafay def pat euh, dina accumuler le maximum de preuves te dina dem ak moom fi mbax ne doonee benn voilà donc beneen information bi nga xamante ne neexuma dara dara dara mooy ki nga xam mooy le jeune Alassane Fall bokk Pastef moom placé nañ ko en garde à vue léegi nii ci fi nga xam ne moo di dikk euh, suba dañ koy defeere fi nga xam ne moo di ci procureur donc moom euh, ex détenu politique la mu ngi nekkoon euh, prison def na fa 10 mois chambre 41 la nekkoon Rebeuss voilà donc moom ñu koy toppee li nga xam ne ne moo di outrage à magistrat Euh, ci vidéo bi ñu gis dafa mel ni euh, quand même laaj na mu am suivi psychologique parce que ça se voit que gars yi affaire yi voilà dañ leen war a topp tuuti encadrer leen ay médecins suivre leen parce que doy na waa daal fi mu génnee bu fooree delluwaat euh, voilà mais bon comme que dañoo ne dañuy yemale donc patriotes yi yéen a ko déggee noonu def leen attention ci déclaration yi ngeen di def walla nit yi ngeen di attaquer. et tout parce que ñi euh, fi nekk ñoom duñu xool ñi fii ngeen bokk wala fii ngeen bokk justice dina def liggéeyam donc faites attention ok. sama mbokk patriote maa ngi jégalu bu baax a maa ngi baalu maa ngi baalu ak baaleen ma man nit laa man nit laa nit laa kese dama cuum dugal vidéo bi di wax ci juge bi ak procureur bi. parce que bu ma waxee si juge bi ça veut dire carrément le président Ousmane Sonko lay waxal te man yàlla xam na ni ni ma bëggee Ousmane Sonko bëggoo ma ko sama bopp Ousmane daf ma jaral àddina ma bëggee Ousmane Sonko laa wax bi ko ji sax noonu ndax man kenn ma dama ko nangul kenn Ousmane Sonko mooy sama xol fi ma ko teg teguma fa kenn maa ngi jégalu baax a baax a baax ma def na ñu ma woo conseil ma bu baax maa ngi jégalu. maa ngi jégalu bu baax baal leen ma ak baal leen ma àkk zizi yëpp bàyyi bàyyi naa ngeen liggéey seen liggéey maa ngi jégalu amaane peut-être dama jum maa ngi jégalu maa ngi jégalu baax baal leen ma baal leen ma àkk si vidéo bi sama sama frère yi nit maa ngi baalu maa ngi jégalu bu baax maa ngi tuub baal leen ma ak vidéo bi dootuma ko defati maa ngi jégalu te wax baax jabate dama si génne ba set wicc di bàyyi justice mu liggéey seen liggéey maa ngi jégalu baaleen ma baaleen ma ak nit la baaleen ma ak baaleen ma ak billaay amaa ne des tey sànq dama jëloon sama garab yi nii xam boo ko jëlee dalay xaw a tur dama xaw a meex quoi loolu moo tax maa ngi jégalu baax a maa ngi baalu quoi maa ngi jégalu ñëpp maa ngi jégalu maa ngi jégalu président maa ngi jégalu yow xam mu man xalaatuma la ñaan lu bon maa ngi jégalu président maa ngi jégalu